di sàkku it ngir rekk ñu bàyyi yeneen militant yi nga xam ne ba léegi yoon mu ngi leen teg loxo. 19 lañ jàpp Dakar 8 lañ jàpp lañ defaree tamit Ziguinchor. ñu ngi exiger la libération de 19 yooyu ak juróom-ñett yooyu Abass Fall nga fa ñu ngi exigé la libération de Abass Fall. kuréel bii di FRAPP nag ne fas naa yéene yóbbu ay bataaxal ci commissariat central ak bu jëppal ngir rekk woon ne seeni naqar waaye itam ŋàññi doxalinu woy takk der yi ci yilay arrestation ca Mbirkilaan militant Pastef yi fa nekk ñoom it jóg nañu di koy ñaawlu ni dañoo gis ni nguurub Sénégal dafa bëgg a faagaagal seen leader bi di Ousmane Sonko ci digganteem ak kii di Adji Sarr te ñoom duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg ku ko laal leen la ñu wax kenn ca ñoom Omar Ndiaye la moo wax ci français waaye Samba Ndong moo wax ci français ñu teew teewlu ko Alassane Ba. diggante Moussa ak Firaw woon na bëri na ay njàngat yu ci bari mais moom la ñuy dundaat ñun Sénégal fu mu toll nii xam ne diggante Moussa ak Firaw na lu mu métti métti rek Firawna mooy féete suuf Moussa féete kaw am nañ mbetteel ak lu ñu métti trop bi nga xam ne complot bii nii jóg na ñu jël suñuy milliards jël suñuy alal ne dañuy comploter pour faagaagal benn opposant politique loolu ay caaxaan la ku mel ni président Ousmane Sonko boo ko amee ci réew yow yaa war a yëkkati xaalis sax di ko wax ne continuer nga liggéey ndax gi nga xam ne directeur des centres national des transfusions sanguines moo taxaw mu ne Sénégal amatul deret ku fi feebar ñu war laa may deret da ngay dee parce que amatuñ deret Ousmane Sonko jóg yi dem leen ci banque de sang yi na banque de sang yi fees dell ak deret te loolu def nañ ko mu wëlbatikuwaat encore mu ñëw mu ne lan ngeen war a def mooy jël leen suuf si ngeen béy tool yi bu ko ni nit ñi xam ne mbéy mun naa développé mu réew ñu dem ci les vacances agricoles patriotes moom moo taxaw mu ne enseignants yi yéen ñi nga xam ne yéen a bokk Pastef na ngeen góorgóorlu ba na ngeen jël réew mi jàngal xale yi ba bu ñu demee année suivante dinañ mën a passer aux classes supérieures mais loolu nañu ma ban ban ban ban leader politique moo ko def fii ci Sénégal amul mais kooku nag jël di rey boppam pour réew mu jëm kanam yow nag nga ne yow ko da koy complété pour téye ko gis nga nag tro c'est tro tro c'est tro ñun président Ousmane Sonko du président wu PASTEF mais président wu Afrique la espoir wu Afrique la loolu nag su weesoo dañoo bëgg a xamal Macky Sall am na yoon foo xam ne boo fa tolloo mënatoo arrière ndax xuloo bi nag mu ngi bëgg dem ca cappaandaw ga te suñu eggee ci cappaandaw bu ko rombee xeex lañ jëm te xeex moom bu fa eggee su boobaa yaakaar naa c'est trop tard pour ñu ne nañ fay daay gi xoddiku bala ngay lakkal maître Abdoulaye Wade ak communiqué di lettre bi nga xam ne fésal na ko ñu ne dafa mel ni kuy gën a dugal Ousmane Sonko ab taskatu xibaar la xam-xam màcc ci wàllu politique lay saytu moom Pathé Mbodj jàpp ne nag njiitu réew ma woon li mu gis rek ni Ousmane Sonko ni muy méttee bopp njiitu réew mi lay méttee bopp doomam ndax nag ci wàllu politique bi féete ci kujje gi Ousmane Sonko daa taxaw te kenn mënatu ko puus ñu teewlu ci Pathé Mbodj ci ak suñu naataango Issa Tine jokkool am nga jàngat bi ci mën a jàngat mooy jàngat bi ko borom dëj bi ci boppam di gisee